moom ndaw si wujju pour am pour nga yar ko te ñaare ci nekk dafa am risque maanaam mën nga takk pour yàq jigéen ci ki nga takk ñëw gën a yées waaw mais mën ngaa takk sunu borom ñëw soppi jamono loolu am na ah waa jeex bi nga wax sax ci ëpp yow père ah, ah. bi nga wax sax ci ëpp mais du ma nangul jàng na alxuraan mais nanguwul nanguwul dëgg jàng na alxuraan nanguwul dëgg nangu naa ko de ah, nangu woo bari na ci ay jigéen yoo xam ne seen jëkkër ñoo leen yàq eh, ba téléphone bi am na ñoo leen defarit ñoo leen yàq parce que kii nanu gaaw ubbi jigéen ñi ñi ngi dund non dañuy waxtaan ci Sénégal la ñu nekk jigéen ñi ñi ngi dund ci ci kujje loo xamante ni nii yàlla xam na ne bu doon bu doon xeet yi ñi ngi ñi ngi ñëwaat nañ fa di atte atte l'islam dama ne la sëy yu bëri dinañ ko lijjantiwaat. nangul naa la. ko lijjantiwaat de. nangul naa la parce que am na ci ñoo xam ne ñoo ak jigéen nee na am na jigéen yoo xam ne balaa ñoo normal rek am wujju. dëgg la ah, am na ci man de man kan moo wax loolu. mayaate booboo mayaate booboo gën a bëri sax Pape Diop. waaw mayaate Pape Diop. am na nekk yàlla ubbil ma téléphone yi ngir yàlla. waaw balaa ma yóbbu téléphone damay ñëw ci euh, Benoît ak. waaw yow waaw waaw yow kii waaw yow ba kii ñaata nga ko yomal xëyam mille waaw moom ay moom nee na day kii. nee ah, na daf may jox nee na daf may jox neuf cent quatre-vingt-dix-neuf yi quoi. nga bëgg a sédd ma ci. waaw waaw nga sédd ma ci yow jëlal benn yow <laughs> jëlal benn. pour ay réew mi ko ñoo maye. ah loolu de la wax. moom moom daal ku la neex jox léegi bàyyi leen ñu joxe waa côté bii nag. kii ah. ok ça va benn ça ma benn la benn. benn laataa may jël on parle de la polygamie un droit à problème yàgg ngaa wax ne polygamie ni ñu koy defee biir Sénégal doyu la neexu la wax dëgg yàlla àndoo ci si niñ koy defee. wallaay su ne woon cëpp Afghanistan ñu jàpp ko. Ah. barka borom tubaab da koy jàpp loo xam ne. kii ah. kuy jullit. boo ne amoo droit sax ne neexu la wala amoo droit nga ne da ko bañ. parce que on est des musulmans yàlla moo moo ko boole. moo ñaale ko si ñun si mm-hmm. loi yi. Mm-hmm. mais ma kontaan trop si titre bi un droit à problème. Mm-hmm. parce que lu yàq Sénégal lu ëpp tamit polygamie bokk na si. parce que des fois ñëpp wax nañ ko yàlla dafa ne takk leen ba pare def fa ngan di point d'interrogation joxe ay chartam ne nii laa bëgg ngeen defee ko. leer mu leer nañ. mais je te dis si tu prends soixante dix wala quatre vingt góoru Sénégal peut être dix ñoo ko say matal te en général au Sénégal ñu mënul amuñu financièrement amuñu. moralement ni ñuy xalaatee ñoom rek a fiy takk di def ay polygamie Safia polygamie au Sénégal lim fi yàq moo ëpp lim fi defar lim fi yàq fi Sénégal moo ëpp li mu defar Sénégal de un gis góor boo xam ne man dafa am damay def ay jàngat quoi sañu SMIC Sénégal ñaata la ñaata la au Sénégal bu bu ñu làqante wax bi am na góor yoo xam ne dégg nañ ne Prospère takk na ñaareel xamuñu Prospère lan la mun xamuñu Prospère naka la def ba takk ñaareel te man góor bu nekk bu fekkee da nga am benn jabar kese balaa ngay takk ñaareel war nga am kër boo xam ne war nga fa dugal sa ñaareel war nga fa dugal sa ñaareel ak sa aawa kër nag waxuma ay location moo tax ma laajte SMIC bi Sénégal ñaata la. mais sa bu fekkee ne góor da nga new pour takk jabar kese bañ a xalaat ne soxna soosu nga takk dina la jural ay doom te doom yooyu yow yaay war a yor seen charge yor seen charge u ndey yor seen éducation je crois que ça vaut la peine de réfléchir ndax yow lii mun nga ko wala munoo ko et c'est très important parce que beaucoup de gens vont me ko que dinga di gis ku am di nga gis ku liggéeyul. di am ñaari soxna yàlla di koy jàppale ak affaire yooyu. am <laughs> ah, merci. soxna su ñëw xaaral père bu ma yàq sama mbaay nii xam nga donc Safia. Mm-hmm. lu tax ma ne polygamie dafa nekk loo xam ne Sénégal li mu yàq moo ëpp. Mm-hmm. des fois da dégg yenn ustaas takk leen ma déggoon fi benn ustaas mu ne góor gu am benn jabar yàmbar nga fii si télé bi. foo ah, man xaw ma da nga doon foo wala xew la boo bu fekkee da nga ko wax ma ne ko waaw góor bu am benn jabar respecté jabaram di assuré jabaram di yàlla charte yàlla wax yëpp mu koy def moo gën nga am ñaari jabar yàlla di lay bindal ay baakaar boo yeggee mu laaj la yow waaw man li ma waxoon ndax da ko jëlee woon foo wala yow yaa bëggoon sa bànneexu bakkan nga def ko waaw wax nga dëgg parce que àdduna fi ñu jëm foofoo jara sóoraale soo ko mënul mënoo ko foofu moo jara sóoraale mm-hmm. parce que li yaa y a millions de femmes au Sénégal ñu ngi souffrir si polygamie mhm. te loolu du ma jox kenn faute bi ku dul góor yi parce que si tu es un nga ne da nga am ñaari jabar mu leer la ne yow sa ñaari jabar yi problème rek la ñuy dëkkee nga indi leen si benn kër boole leen fa si y a quelque chose qui perturbe c'est de ta faute parce que tu n'as pas les moyen xam sa aawo ni mu mel nga indil ko beneen kuy si biir kër gi hmm. di nga xam ne kër googu xuloo rek a am arrêté de me dire maanaam sa aawo ni mel ci lan sa aawo ni mu mel si si si wex sa aawo ni mu mel si fiir sa aawo ni mu mel si bëggul wujju waaw léegi kon bu fekkee bu fekkee da nga war a ut wujju waaw waroo ko indi si biir kër gi nga xam ne fa la ba nekk su fekkee génn kër moo tax moo wax la ko xaar ba mën ma Ah, ba man lan père bàyyi ñuy wax waaye ngir yàlla. xaar ba ma ne ma la bàyyi xaar ba ma ne daal laa am ñaari ma ne wax déglu ma rek. ba xaar ba am ñaari kër dama ne daal laa soo amee génn kër la. c'est ça qui crée les ah, problèmes génn kër la am. yaa ngi dégg yaa sayda. xamul dafa am loolu. Ah. Mm-hmm. gis nga xale yu bari yi ngay gis. waaye du naafiq yu bari yi ngay yu bari bu fekkee mm. xale yi ngay gis yaa seeda. yow continué ma de. xale yi ngay xale yi ngay gis nii si mbedd bi ñuy taxawaalu. des fois nga ne mais kii est-ce que am na kër. parce que seen baay dafa am benn pantre bëgg fa dugal ñetti jabar. nanguwuma loolu mais xale yi. du ñu mun toog si kër gi chaque fois xale yi ñu ngi si mbedd bi di taxawaalu matin midi soir des fois te poses des questions. mais boo demee ba si biir da laajte ñu ne la kat seen baay dañ benn kër benn pantre la am jabar ji kenn naa ngi si néeg ba fële beneen pantre bi kenn naa ngi fële beneen pantre parce que at least nit ki boo ko takkee at least war nga ko bégal de temps en temps bégal bi mooy lan war ngeen sax nekk yéen ñaar am sympathie si kër gi di foo di kii affaire mais bëggee foo ma foo da nga am polygame am ñetti jabar si même pantere ko parce que boo koy def keneen kaa ngi ne ah non maa ngi loolu man boo xoolal gis nga Sénégal waaw ñetti gis nga Sénégal gis dañ ko ragal wax maire yu bari maire yu bari si famille. yàllaa ngi leen di xaar. lu ñu mus a dugg àjjana. ay maire ay maire lu maire yi def. parce que da ngay gis koo xam ne doomam day am benn jabar neexu ko mais yooyu damay won ne góor yooyu ay góor yu ñàkk fayda lañu. neexu ko wala parce que nekk ak moom sama jabar neexu ko mu may imposer pour ma takk deuxième femme dem takk deuxième femme indi ko si kër yi. su ko sa jabar mayu jàmm na. may ma. su ko sama jabar sama jabar. waaw loolu laa lay wax góor bu ñàkk fay sama jabar sañul bay may sama yaay jàmm bu ko mayul jàmm ma fase ko amul bu amee tamit góor yooyu ñàkk fay da dañu war a fase kooku mu dem ça dépend nag ça dépend lan la maire bi di def kooku ba may ko jàmm ah, ah donc am lu ko maire bi def wala ah, may ko jàmm waaw ah. am na ay maire yoo xam ne seen doom day indi waaw am na ay maire yoo xam ne seen doom day indi jabar si kër premier jour bi bëgguñu ko. parce que bi ñuy koy labat daf ko ne woon kii doo ko fi takk ànduma si. bu ko e vengeance lay doon. te su boobaa noo def mu utal la ñaareel. waaw nee na ay père. li may wax li nga wax dafa am Sénégal parce que xam nga xam nga xam nga xam nga. li ma la wax dafa am xam nga quel est le problème. que Sénégal buñ fi nekkee buñ fi di wax di neexalaate di wax yenn affaires yi moo fi taxawul. lu tax ma ne maire yu bari yàlla ngi leen di xaar parce que maire yu bari ñooy tooñ seen doom seen doom boole si ñàkk fayda gis ma góor bu la yàlla may yenn âge yenn décision yaa koy jëlal sa bopp. Oh. yow kii bu ko déglu bul nangu kenn jëlal la décision si kër àdduna. te ah, ah, contre naa jigéen bi nga xam ne day toog di sëy ak jabaram ak ak jigéen bi nga xam ne day toog di sëy ak jëkkëram. ñu koy ne bu fekkee. yow. waaw tant que wutal la ñaare sëy mais jigéen boobu kooku kooku kooku jéppi naa ko. sa liggéey. ki néewul balaa papa moo ñëw kër ga da koy tàggu. non xam nga lan laa bëgg expliquer. Ah, doo ko ko laaj moom mi toog nii. xam nga lan bëgg expliquer moom aw ma moom wax. dama bëgg ne ñeneen ay ragal ngeen kenn la. xam nga li ñëw ca kër ga da lay tàggu. d'accord on parle ah. ne. bu la si àdduna. si àdduna. loolu moo yàq actuellement li si ëpp moo yàq réew mi. si polygamie bi ok waaw parce que li may wax man. Ah, nga ne ok. li may wax dama ko yoon dama ne. ñi fi gën a néew doole ci Sénégal ñoo fi ut a takk. yoru ñu bëgg a takk. bu ñu toog di ne. <laughs> mu defal yor du yor xaalis. ay jabar bu ñëw àndaale wërsëg d'accord sànq Pros ba pare doo mun yar jabar d'accord naa. mais yàlla minimum. tu ne peux pas avoir cent mille francs ne da ngay yor ñaari jabar. man de digaluma kenn. yaa may dégg ci lu mu léegi bu fekkee ñun dañu nekk ci àdduna. déggaluma kenn mu dugg ci lu mënul. yow nga am benn jabar. waxuma loolu. boo amee benn jabar yéen a ngi dund. Hmm. ba àdduna xëy yow munoo woon yàq sa jabar ngeen di kotkoti. waaw di kotkoti di kotkoti. waaw ngeen doon luwe. waaw bari na fi. waaw di korkoral. waaw d'accord léegi boo leen korkoree yéen ñaar yàq sa aaw ak sa jëkkër sa jëkkër ak ja ngeen tabax seen kër. waaw waa jooju. waaw.

dama ne góor. mais këram la yaa Seyda man su may tabax sama kër. Hmm. mu leer ma ne man je suis polygame. du ma cotiser loo sama jabar pour muy tabax si kër gi pour ma fay indi leneen jigéen. loolu la dama ne. dama ne bu fekkee yow góor bi da nga am aawa. yéen ñaar ngeen boole seen alal ngeen war a bokk seen yëf di ñette di tabax di tabax di tabax kooku góor boobu bu fekkee bëgg na ñaareel dafa war a dem luweele ji ñaareel bi kii mhm. wala kër gi ñaar deux étages la war nañ mën a indi kenn ki yégal si ko non non amu wax dëgg yàlla amu si droit bu neexul awo waaw loolu warul def waaw la ñuy def waru ko def xam na loo gis si àdduna dafa war a am respect mhm. man toog naa fii ne bu neexul awo ko def un bu fekkee da nga am jabar nga dem ba bëgg a ñaareel am na nooy préparer sa soxna. doo ñëw rek dimanche ba say copain jógee fële ñoom lënta gars yi ñëw ne ko eh waaye ñun de fan foo leen demoon dama takk woon jabar. baa ñu yónnee la vidéo bi fekk. la koy yéegee quoi. non am na ñoo sax vidéo yi. xoola maanaam ña fekkee cérémonie bi. waaw kay regarde am nga réew boo waxee ñu lay ne jël vidéo yi. yónnee ko la ko nga xam ne takk na jabar. mais regarde moi respect envers cette épouse. regarde-moi manque de respect boobu góor gi. am na a un ami mu ma buy takki. mu ne ma buy takki. Hmm. du ko wax aawa bi de. day defar valise am. dem takki. Hmm. continuer noonu dem lëndëm yàlla. benn naa la su weggee woo ko. su weggee woo ko ne ko maa ngi lëndëm yàlla takk naa ñaar mën naa laa laaj benn. respectueux. léegi kër googu que mën naa tam mën naa am jàmm. mais kër mooy joxe lan mooy. parce que fondement bi tooñ la. tooñ la parce que soo ne da ngay tàggu sa jabar. waaw ñu ne la da nga tàppet du question tàggu. man dama ne dafa am nooy waxtaan ak moom. préparé ko si ñaareel boobu ba nga xam ne bu amee. moom dina xaw a soulagé. mais tu ne peux pas irrespectueux devant ta première femme. dem takk ñaareel nga foog ne sa kër boobu après day neex. loolu loolu lool góor yi moom la ñuy dama lay laaj. loo may laaj merci Ben. li ma lay laaj mooy. ci yow laay ñëw soo du wax. mais papa heure bi mère bi sax ma introduire yow. balaa takk faaw nga tàggu sab aaw. dama ne déglu dama ne boo amee aaw. balaa ngay takk ñaareel. waaw da nga ko war a préparer mu xam ne di nga am ñaareel. da nga koy préparer. mais doo dem takki fa Sénégal seen yëfu fii tuuti lay tooyee. boo ko waxee doo musa takk gisoo ñun boo ko waxee doo musa takk loolu amul ñu liggéey leen ba. waaye amul waay mais loolu gëm-gëm la rek. mais man de xaw ma gëm gëm. gëm gëm kese la mais su ma doon daal doo leen di takki. xoolal gëm gëm kese la. ñëwal yaa ak yow. da ngay yow waxal ma koo xam ne kii nga gisoo gisoo loolu. mais su ma doon daal gëm ba dem ba mu ne doon kay may mu yàqu. waaye dara gis nañu ko waxtaan ak jabaram dem mu am gis nañu ku waxtaan ak jabaram. dem takk ñaareel. gis nañu ku waxtaan ak jabaram mu war bëtt ku ba léegi amul. mais yàlla moo doon du am waaw ba léegi amul. mais yàlla moo doon du am waaw yow xam nga ci loolu dara. xam nga ne da ngay ne ba nga bàyyi kenn dem di labati. demal nga labati demal da nga koo ñeme. ñeme nga ko jógal nga dem labati yow. kan man waaw. mais yow yow jógal nga dem labati. l'émission n'est pas. déedéet toolu waxtaan yëf yi mu émission bi dëkk da nga koy solal kenn da nga koy natt sa bopp. yëf yi mbugg la yëf yi mbugg la ba da nga koy solal kenn da nga koy natt sa bopp. waxuma nga bul xalaat waa Amérique jógal nga dem labati. bul xalaat loo waa Amérique wala kenn. waaw waaw dama ne jógal nga dem labati kenn ngeen di ko yow ñemewoo ko yow. mais yow père de quoi tu parles. aywa aywa yow la làkkuma la arabe làkkuma la français. waaw lu tax la dama ne jógal dem labati. dama laa war ne ñeme woo lu tax benn nga yom ci nga yom bul encouragé ñi nga xam ne benn na nan yob te mën ko te sonn respecté wuñu seen ndey respecté wuñu seen baay respecté wuñu seen way jur respecté wuñu waa kër ga mu leen neex na muy joxe seen ndey ñam.

non yaa Seyda yaa Seyda s'il vous plaît. nangu naa am na nooy takkee ñaari yëpp yaa Seyda dama ne ma waaye am na jigéen ñoo xam ne jàpp ba leen tàngoor xam nga yaa Seyda lan moo gën a bon te li muy wax ay Seyda ak ma ngir yàlla bokku doom dañ koy ah, def ba la ñuy échoué alxuraan ci la mais lii ma la wax non non non ah, waaw l'Afrique a ses mystères voilà am na ñoo xam ne yaa Seyda d'accord la soo leen tàngoor nga xam ne mbër dëgg nga ko digaaleel mais ma ma ma jeexal fii rapidement dama bëgg a ne am na loo xam ne mais nit ñi wax tuuti dama ne bàyyiwuma la am na loo xam xam ne si àdduna père père góor bu ko wax am nga loo xam ne si àdduna yow moom xam nga yow non am nga loo xam ne yaa seeda góor bu ko def si àdduna tu es irresponsable xam nga mooy sa première femme nga ne mayu la jàmm da dem faj mer pour indi beneen deuxième waxuñu faj mer de loolu lañ la fi wax sax na la faj mer da nga faj a waxuñu faj mer de respecté merci beaucoup euh, la euh, kàddu gi ñu waxtaanee lu am solo muy polygame et pour man euh, ah. question bi ma bëgg a poser pour yow ci polygamie mooy impact bi muy def ci xale yi parce que c'est très important. dañuy wax rek et on oublie boo introduire. ba pare ñu daal di ñëw ci loolu. ci loolu alors man effectivement Sophie polygamie bu ñu koy waxtaanee bu fekkoon nañu ko waxee ni ko yàlla waxee ñëpp defee ko noonu kon duñ ci débat tey. parce que moom lépp lu mu digal nit. baa mu jox ko ko comme droit góor yi la ne takk leen. teg ci ay conditions yoo xam ne nit ñi buñ ko toppoon yaakaar ne duñ fi toog sax di débat parce que les choses. dafay deme de façon bu baax maintenant mhm. beneen problème bi mooy polygamie source de problème la surtout ñun ci suñu société gis nga Safia condition yooyu noonu yàlla teg moo tax gis nga parfois dëkk yi alxuraan wàcc ak yeneen sax par exemple ñun li ñuy pratiquer polygamie fii moo gën a présent que yeneen dëkk musulman yi mhm. muy un deuxièmement dama wax lu ñuy ñu woowee honnêteté intellectuelle sànq xaw nga ko brosse mhm. mais su ma amee ñu may indexé tey ñoom yaa say daalaay wax ndax xam nga tey Sophie amul benn jurisprudence tey jël diine di ci wax ne dafay jàngale mën na jàng di ko partager ak famille ak yenn nit ñuy waxtaan nii mais dafa am ay nit yoo xam ne dañoo jël engagement engagement bu toll nii jàngale di jàngale tey bëri na ci ñoo xam ne tey bu ñuy wax ci polygamie ben tu as l'impression surtout peut-être ñu góor ñi que c'est juste parce que ay polygame lañ que quand ils prêchent dañuy fàtte ne booy jottali waxu yàlla nga concerné ou pas da nga ko war a jottali tel que ni mu ko ni mu koy waxee ak xaddi c'est-à-dire mm. yow génneel sa bopp ci wax ji soo jàppee ne yow Prospère Dieye tu as quatre rek nga war a waxtaanee polygamie rek di ko waxee nu la neexee xas père xas Benoît yéen góor ñi nangam parce que soi-disant yow polygame nga et que réussi parce que c'est un véritable challenge dinaa ci ñëwaat c'est un problème yow sa rôle mooy lan mooy nga waxtaan ñi la yàlla boole jullit bu góor bi ak jullit bu jigéen bi ne ko yow mi nga xam ne yaa ngi ci néegu polygamie nii nga war a comporter oo yow mi nga xam ne góor nga da nga war a jël ay soxna lii mooy sa warugal bés boo dajalewul lii nekkoo ci possibilité jël ay soxna parce que dañu wax condition nekkul obligation condition la mooy yow Prospère Dieye góoru jullit nga yàlla obligé wu la nga jël ñeenti soxna dafa ne la may naa la droit bi bu doon dalay may droit noonu rek ngay gëmm comme ni ko di góor laa am naa droit ba ñaar ñetti ñeenti jabar du ci teg wante parce que waxu yàlla amul ko gën leer maanaam moom bu ci tegee wante rek mooy y a des conditions à remplir mu ngi mel ni ngay dem di déposer dossier ngay dem fenn ñu ne la conditions yi lii la boo ci rate bu nekk nga rate li nga xam ne mooy mission bi ñu la jox. man noonu laay njëkk a kii bot soo jotee doomu kii bot lay wax. waaw waxuma de. waaw may ma ma ñëw waxuma la yéen. waaw may ma ñëw ma la yow waxuma la Sophia may ma ñëw. ñi nga xam ne soo jotee doomu. yow soo jotee doomu kee bor. soo jotee doomu kee bor ci génn kër. waaw ñun moom xaaruñu polygamie. nañu bàyyi nañu bàyyi suuf mu continuer. bon ñi nga xam ne boot nañ te xaaruñu sax polygamie. boot nañ doomu ku ne te xaaruñu polygamie. donc pour boot ci ci xol la. dooy affaire de polygamie doomu wujju laa wax. doomu wujju doomu leneen doom doom la. Mhm. loolu man dinaa ci ñëwaat Sofia posé na question bi doom doom la. c'est-à-dire ñi sant sa kër. amul Sophie Gueye leen jur amul Safia moo leen jur ñoo bokk suñu benn jeey muy suñu baay mhm. kon képp ku bëgg Prospère Dieye war na boot doomu Prospère Dieye loolu c'est c'est le béaba ABCD wu polygamie la nopp nga prosper da ngay nobaale ay doomam loolooy logique boo nobul ay doomi Prospère mooy yow sa bëgg ci Prospère des na ndax ay doomi Prospère ci Prospère la ñu daj donc loolu y a pas de règle à donner ci bëggal doomi diw bës boo toogee yor jigéen ci sa kër bu bëggul say doom yaa ngi daas paaka bi lay rendi ëllëg parce que ñoom mën nañu dem balaak sa njaboot parce que njaboot boobu yàlla daf la booleek ñoom ba yowmal xiyaam c'était pour répondre à Père mm-hmm. polygamie bi